lay jox information contentement bu baax a baax a baax internet yi Feeling Dakar yi maa ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax a baax di leen bëggee macha allah di leen wax ni leen <laughs> moon ngeen ma waaye xam naa ne maa leen raw lool lool émission bi miin ngeen ko ndaanaan yi miin ngeen leen waaye tey nag dama dal ci beneen ndaanaan boo xam ne macha allah kenn dootu ko nattable ci mim réew ak bitim réew. mu mën lool lu muy def waaye sénégalais yi min ko lool ci dal min ko lool ci teey min ko lool ci mu nekk un parolier lu mu way macha allah lu mu wax macha allah Yoro Ndiaye maa ngi lay nuyu. soxna mi Collé maa ngi lay fay di nuyu mbokku internet yi ñuy seetaan yëpp waa Feeling Dakar. Mm-hmm. donc am mbégte ci dalal leen fii. Mm-hmm. Mm-hmm. kontaan bu baax a baax ci dalal bi ñu dalal. di la wax ni la namoon nañ la Sénégal namoon nañ la. maa leen Sénégal moom maa ngi ñoom ba géej gi fer donc ay namante la. waaye Sénégal la ñuy laaj yoro yoro des fois da ngay raar de. raar fan ça dépend ci fan nga wax raar. des fois comme ni ko ñeneen ñi di defee dañuy dégg ñi ngi vogue ñi ngi ci boîte de nuit ñi ngi fii ñi ngi fii mais yoro daal lay toog ci coin macha allah nag. Hmm. sa li nga fi def moom du fi jóg. te ba léegi yaa ngi def xam naa ni. ok d'accord est-ce que eh, yaa may seet. ci fi ma nekk est-ce que ñi nekk ñooñu ngay lim ñëpp ëpp ma leen lu may joué. ah lu tax kon duñ ko yëgee nii ñooñu. waaw mais est-ce que nit ñi ñu koy dem nañ ci sama page yi abonné ci pour xam pour jot notification suma événement yi man je joue chaque mhm. week-end week-end munu du ma tëb sax su ma tëbee week-end ma rek c'est parce que nekkuma Sénégal wala ma am empêchement. yoro fan lay tous les week mhm. maa ngi Radisson chaque week-end chaque fois tous les vendredis la week bi rek la changé. Mhm. war a jouer le samedi mais tous les week-ends ou parfois deux fois laay jouer dans la euh, semaine bi. deux fois waaw deux fois. semaine bi passé semaine bi passé week-end bi passé j'étais euh, à Radisson xëy suba xëy le lendemain dem ci festival jazz bu Saint-Louis bi. macha allah donc les gens bu ñu demee sama page Facebook. Mhm. wala ñu dem cest dire nit ki boo koy bëggee suivre. Mhm. il faut aller dans ces pages. foofu la àdduna toll quoi dire parce que ñëpp jotewuñu mhm. en fait dem ci les médias traditionnels pour faire la publicité. parce que publicité c'est payant. donc nit ñi seen réseau la ñuy utiliser. seen base de données la ñuy utiliser pour faire passer leur Euh, le le voilà mais mais mais Yoro. Mm-hmm. lan moo tax duñ lay gis ci yenn euh, manifestation yu mag yi. c'est-à-dire. ça c'est-à-dire Yoro de dégguñu Yoro Grand Théâtre mm-hmm. wax naa la ko léegi bala ñu mm-hmm. commencé. dégguñu Yoro euh, Sorano. dégguñu Yoro Zénith. te xale yi di fa dem nii. <laughs> wax dëgg yàlla liñ fi def ñoom xanaa defaguñ ko fi. waaye mais option la rek c'est-à-dire grand théâtre moom garaawul quoi grand théâtre bu bu ma ko waree def dinaa ko def ça dépend. ci condition yi c'est une salle. grand théâtre ak man. <laughs> joué euh, Phoenix laa yamale quoi c'est-à-dire xam nga la moo tax ma ne foofu Phoenix laa yamale cest dire mi ngi dépendre ci type de de spectacle bi ngay bëgg def cest dire bu ma soxlaa ne type de spectacle bi ma war a def. Mhm. grand théâtre laa ko war a defee pour le grand public. Mhm. dinaa jël date naa ko préparer comme ni mu waree. Mhm. woo fa nit ñi dem fa Sorano moom je l'ai déjà fait. Mhm. xam peut-être na yàgg na un peu. peut-être naa ko defaat. Mhm. mais euh, série d'événements yi fi jaar bu yàggul. Mhm. xam nga euh, tax na moo chamboulé woon un tout petit peu les programmes. pratiquement parce que dañu jóge ci Covid automatiquement ñu jël ci émeutes yi fii doon am deux mille vingt et un ba chaque instant boo voilà yi saa yoo duggee pour programmer benn affaire d'ailleurs man j'étais en de. préparé suma album pour war ko waroon ko génne boobu léegi mu am retard génnul pratiquement maa ngi koy doog a décider pour mu génn ren donc ce qui fait que affaire yooyu yëpp moo doon chamboulé ay affaire yu bari bari bari bari donc voilà quoi. kon mën na ni 2024 bi Yoro dina ci génne album. waaw incha allah juin juin précisément. fin ah. juin incha allah l' album yaay kan dina génn. non ñun ñoo mën nag waa Feeling Dakar ñun ñoo ko am. macha <laughs> allah mi ngi noonu Yoro. Mm. nag ak tolluwaayu réew mi mhm. yoro sénégalais nga mhm. gis nga ni ñu ci gouvernement bu bees gis nga mhm. ni temps yi réew mi jaxasoo na gis nañ épingle fii gis nañ audit yi fii gis nañ <laughs> opposition bi parti pouvoir parti pouvoir sax wax dëgg yàlla kenn déggu leen ñu wax mais gis nga opposition bi noo gisee tolluwaayu réew mi bon ñun ñoo aspiré woon pour que mu am bon je fais partie de ñi bëggoon changement am quoi en tout cas bëgg nañ changement euh, changement am na alhamdulilah. kon a patriote nga. waaw Sénégal yow patriote nga. non man nga. non du ma élément da nga bokk ci ñi Sonko ñi sonkoriser réew mi. non mais sympathisant la en fait je veux dire que ba mais patriote la képp sénégalais mooy patriote mooy bëgg sa réew. bu dee bëgg sa réew rek man bëgg naa sama réew kenn gënu ma si jiitu ñi nay woote patriote ñëpp gën ma nekk patriote. Mm-hmm. donc mais je vu que. bon euh, ñu bëri demande sociale la woon quoi en fait que réew mi changé quoi nit ñi dañu bëggoon. Mhm. vraiment Sénégal changé parce que c'est le même système moo fi nekkoon depuis 1960 ba léegi. Mhm. donc ñu ngi santé yàlla. Mhm. bi mu changé comprendre voilà donc ñi fi nekk nag am nañ ci ñoom yaakaar ba tax ñu ñu votel leen. donc ñi ñaan yàlla yaakaar boobu nit yi am si ñoom. yàlla bu si dara toxu. amiin yal na leen yàlla defal ndam. amiin ci li nga xamante ne bi moom lañ dëgmal. amiin waaye waaye temps yi réew mi jaxasoo na ndax euh, épingle yi ba mu commencé jolli rek. Mhm. la commencé missing yi commencé jógee fu ne ñoo ngi gis barki de moo Ndiaye Ba Jaxate mi ngi toog di wax euh, président son excellence Ousmane Sonko ay wax yoo xam ne teg wul ba dañ ko yoon teg na ko loxo. Mhm. ñu ngi gisaat ñeneen ak ñeneen ñu ngi génn di ko wax ba wax ko wax ju tegginuwul joo xam ne. Mhm. dem ba ko Ousmane Sonko. góor jigéen nañu baal ma ci terme bi. Mm-hmm. muy ay wax yu ñaaw yoo xam ne est-ce que nguur ak politique ak yooyu yëpp jar na loolu. en fait man euh, man du ma xool foofu quoi. Mm-hmm. man je regarde le trucs positifs yi nga xamante ni moom moo moom moo am. Mm-hmm. xam nga gis nañ béykat yi fan yi hmm, eh, ñu ñu ñuy sant daal ndax parce que jox nañ leen engrais. fay nañ leen seen i bor. ba ñu ngi préparer seen nawet. comprendre man bëti garmi laa yor quoi lu baax lay xool. comprendre nga c'est-à-dire wax yu bon. Mhm. ak wax yu kii man du ma j'ai j'ai même pas envie de commenter ça quoi. Mhm. t'as compris c'est Sénégal. Mhm. dañu il est temps que vraiment pour que ñu focus ci lu ñuy développer. c'est-à-dire lu baax li fi nit yi def yëpp. au lieu ñu xool ci. ñu nekk fii di wax di attardé wu ci ay wax yu bon ay wax yu salte ay débat de débat de de de caniveau man je suis pas je n'entre pas dans ça. man li ma bëgg mooy que ñu ñu ñu xam nga c'est-à-dire ndab buñ la ko joxee. buñ ci lekkee ba pare jox la ko. il faut nga raxas ko. voilà léegi nag ñi jox ndab li. Mhm. ñu ngi nekk di raxas. xam nga toll ci nettoyer raxas. waaw waaw bu ñu raxasee ba mu set. Mhm. après ñu doog ci yàq nag lu bees. su ko defee jox jox ko mun a jox nit yi. xam nga mais sénégalais ci boppam moo yàkkamti. xam nga mhm. Sénégal dafa yàkkamti diggante li ñu naan diggante solo ak summeeku il faut maam yaramu neen. waaw comprendre nga. voilà donc ñii fi nekk. Mhm. je crois que war nañ leen mun a muñal tuuti na quand parce mhm. que mun naa ne à deux mois sax matagoo. Mhm. su ko matee si lay toll. voilà donc ils sont en train de faire des des pas. Euh, ils sont en train de faire des des des trucs yoo xamante ne vraiment c'est c'est dans le bon sens. voilà ni ñu wax kenn bu mu wax nag su la neexee ñu alerte parce que liberté d'opinion moom fépp lañ ko fekk mais li bon kay. mooy tooñ. Ah.

président bi fi nekk nii Ousmane mm. président Diomaye mm. ñoom ci lii leen jëmoon moo taxoon mu créer loi d'amnistie ah franchement nag man xawma ci dara loolu moom li tax mu créer li la loi d'amnistie bi xawma ko mais je crois que dafa mériter aussi ñu xam fu dëgg féete mm-hmm. comprendre nga c'est-à-dire c'est bon de de de d'apaiser c'est bon di jéggalante mm-hmm. xam nga pour passer à autre chose mais je je crois que lu ci nekk mm-hmm. war nañ koo luñutu ba xam xam nga kan moo def après su ñu jàll ci leneen ñu doog si jàll si leneen quoi. kan moo def ça veut dire que parce que ñu ngi leen woo di nangu si suñu comme nee nañ suñu alal lañ jël. Mhm. parce que da nga doon gis koo xam ne un million cinq cent wala un un million cent wala deux millions la doon fayeeku nekk fi milliardaire. Mhm. loolu la président Diomaye taxaw pour récupérer loolu delloo ko askan wi. waaw mais loolu defe naa loolu aussi bëgg nga ko keneen bëgg na ko man bëgg naa ko c'est-à-dire alal bu fekkee dañ koy jël ci mhm. ñëpp ñu bokk kenn bëgg ko ak ah, ah, mhm. euh, bi delloo ko ci bi n'est-ce pas mhm. voilà donc man je crois que defuñu lu di tax ñu teg leen fi ah bon fekkee noonu lañ ko defee man xaw ma guma xaw ma de tout ce qui se passe ici comprendre parce que épingle yeeg yooyu loolu moo ko andi mais bu fekkente bi daal alalu jàmbur yi nga xamante ne alalu askan wi nga xamante bi ay nit ñoo ko jël. Mm-hmm. te ñun ñëpp ñu bokk ñu bokk ko delloo askan bi loolu moom jàppale di avec même la tête. Mm-hmm. xam nga gis nañ aussi euh, barki démb Adji Sarr ni day génn wax léegi yow selon yow loo xalaat ne Adji loolu la war a génn wax. non non loolu moom bëgguma cee wax. ay wax yi. Adji Sarr non franchement. parce que Adji Sarr j'ai pas li mu fi def yëpp. donc du ñu dellu siwaat ci sax ci fee mm-hmm. mais li mu accusé président Ousmane Sonko ak bakkan yi ci tëdd yàq bi ci jot a am mm-hmm. loolu yëpp yow am nga ci xalaat waaw ce qui est fait moo tax ma ne la actuellement nii xam nga dafa am na loi d'amnistie mm-hmm. loi d'amnistie am na jéggale nañ on passe à autre chose mais ñi war a lijjanti xam kan moo def dara nañ ko def et buñ ko xamee ñu jàll ci leneen quoi léegi li ñu gën am solo mooy on a perdu beaucoup de temps ci temps yi fi jàll yëpp dëkk bi métti na dara bougé gul mhm. il est temps que actuellement ne li xaar ci nguur gi ñu wàññi denrée de première nécessité yi mhm. wàññi essence bi wàññi euh, waaw carburant en général quoi je mhm. c'est-à-dire ma ku feebar faju ku feebar faju foofu la ñuy xaar ni ñi éducation ñu ñi nag taxaw pour gunge leen ci c'est-à-dire bu fukki nit di gaz fukki nit di suul pën day bari waaye euh, kàmb du am quoi il faut que ñu accompagner leen voilà il faut ñu accompagner leen parce que réew mi mhm. bu suuxee ñëpp la suuxal donc bu baaxee ñun la la baaxal donc ñun dañu war a jéem a positiver mhm. pour que affaire bi li nga xamante ne moom lañ yéene mhm. ñu am ci ndam quoi mu nekk ndamu Sénégal yëpp quoi voilà mi ngi noonu denrée yi surtout denrée yi parce que dañ woon Ousmane Sonko président Ousmane Sonko dañ ñëwoon day wàññi ceeb be wàññi mburu mi ak hmm. après mu génnaat ne dans deux ans yow dans deux ans boobu loo ci xalaat dégguma loolu bay bay dundee. Hmm. wala lan nga ci xalaat. noo man dégguma loolu de soxna si. a ah, loolu lañ wax. dañ ne. Mhm. dañ ne pour ñu egg ci liñ niñ ko maanaam wàññi bi mu dem pour nuñ ko bëggee. Mhm. il faut deux ans. Mhm. c'est-à-dire dañ ne nag donte wàññi bi moom dina am. comprendre cest à dina am ay am na ay daara yoo xam ne mën nañ ko wàññi dans l'immédiat. comprendre nga. yoo xam ne dinañ ci mën a def ay jouer ci ay levier wàññi ko. waaye pour ñu mën a am autosuffisance. il faut que mbay mi. ñu bay xam nga ku bayagut mënoo a mënoo mënoo am autosuffisance bay dundee voilà ñu dem ba fexe ba yenn produit yi nga xamante ne bii soxla yittewoon nañ ko ñu bàyyi ko ci réew mi mu naat mhm. ñu mën ko jox askan wi a espérer nag jouer ci mhm. loolu bu ko waxee c'est logique l'essentiel que mooy ñoom nañuy génn mhm. di wax ak askan wi parce que xam nañ ne c'est pas facile am na ci loo xam ne ça dépend pas de leur volonté comprendre nga. Mhm. parce que blé buy jógee ba Ukraine wala Russie. Mhm. xam nga maanaam marge de manœuvre bi day ndaw ceeb bay jógee Inde. Mhm. marge de manœuvre bi day ndaw diwlin ngi kasaalika. Hmm? léegi nañ fexe ba maanaam suñ Sonacos gii. gi a produire fii ak déwén. diw gu bari. xam nga. Euh, ceeb bi ceeb bi ñu mën cee bay lu bari. ba mu waaw ba mu mën a wàññi. Euh, way man en tout cas daal man am naa ci rafet njort. nañ leen ñaanal. voilà kon kon daal yow mën nga ne ñoom. jaaraama. ci liñ defagu. waaw mais ñoo ngi leen non defaguñu dara pratiquement dara c'est-à-dire dañ leen di accompagner ñaanal leen rek. cest mm-hmm. te rafet njort quoi. Mm-hmm. cest xam nga nit parfois bu fekkee nit commencé gul nga commencé. Mm-hmm. maanam di xool di xool lu bon. lu bon rek nga gis. comprendre nga comme dañ leen a fal ñu bees. nañ leen am rafet njort. comprendre te rafet naa njort quoi c'est aussi simple que ça. Hmm. parce que nag wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee sànq gaal gi moom du suux quel que soit alpha gaal gi du dig ndax boo nekkee ci biir gaal gi di ñaan gaal gi suux bu suuxee doo rëcc kon opposition ak pouvoir yëpp nan ñaan rek Sénégal jëm kanam parce que ndam lu hmm. ñu am bay dunde Sénégal ko moom ñu jëli ko feneen ñoo ciy perte hmm. kon nan jàppalante opposition woo pouvoir woo taxaw leen pour Sénégal projet nguur gi fi nekk tamit projet lan leen fi tegee macha allah. ñi loolu la ñuy xaar ci yéen. <laughs> projet bi ngeen ñu proposé moo tax nag ndaw yëpp ànd ak yéen macha allah mm-hmm. ndaw ñi àndoon ak yéen ndax projet bi ñu ngi toog di xool. Mm-hmm. kon nag yàlla bu yaakaar yàlla bu yaakaar tas mm-hmm. am nañ ci ñoom yaakaar bu baax a baax parce que ñoom. li metti ci réew mi ñoom dundaloo nañ ko ak askan wi. président Ousmane Sonko dundaloo na ko ak askan wi président Diomaye dundaloo na ko kon donc ñoom xam nan fii metti comme xam nañ fi metti nag ñoo ngi leen xaar pour ngeen mhm. teg ci loxo <laughs> <laughs> yoro buñ jógee ci loolu mhm. ñu dem ci carrière yoro mhm. parce que yoro fan la dooree musique bon avant avant may may may def ñuy def transi transition bi ci ci suma carrière xam nga dafa benn aspect boo xam ne euh, daf ñu laal ñun en tant les hommes de de culture te nguur gu bees ñëw fi <laughs> donc ñu war cee Mmh. xam nga parce mmh. que man j'ai eu euh, comment dirais-je l'opportunité mmh. ak euh, par exemple waa SODAV xam ah, man je suis euh, conseil d'administration là ci biir SODAV okay. donc euh, recevoir le ministre de la euh, culture ak ak secrétaire de la culture bi nga xamante ne bi moom moo nekk présidence ñoom ñoo ñoo àndoon vraiment wax loo xamante ne bi dalal na suñu xel aussi ci côté culture parce que ñun actuellement nii li xaar ci ñoom lu gën a urgent mooy copie privée bi Mhm. copie privée bi nga xam ne mooy soulager. Mhm. képp kuy instrumentiste te ñoom mosuñu fayee ko droit muy fecckat yeeg mhm. ñoom ñëpp ba ba ba SODAV amee ba léegi mosuñu fayee benn droit. donc te copie privée bu ñëwee dina permettre ñoom ñëpp ñu siggi. mën a gis seen bopp. ci ah, vraiment ni SODAV di def voilà donc loolu ñu ngi leen ciy ñaax luñ mun. ñoom promettre nañ ñu ne vraiment fii ak cent jours yi di dañ ci def ay jéego. te ñu ngi leen ciy le statut de l' artiste aussi. nekk benn priorité boo xamante ne bii ñu duñu sonn vraiment ci di leen ci ñaax aussi vraiment luñ ci mën a def parce que boo gisee ñu bëri artistes yu bëri doon raser les murs bu mm-hmm. élection yi amee boo gisee parce que mm-hmm. li ñaan ku ëmb sa sànqal ëmb sa ëmb sa mm-hmm. parce que boo gisee dañu dépendron trop de de de de par exemple nit ki bu fekkee da ngay tëgg sa soirée di ko ko di ko ko parrainer wala nga yaakaar ci moom même boo sa discours da nga koy modérer comprendre nga donc il faut que artistes yi retrouver leur liberté retrouver leur liberté mooy dundee seen ñaq mhm. nit ki bu dundee ñaqam dina mhm. am dina siggi mhm. maanaam boo gisee lu mu war a wax dana ko wax léegi nañ fexe ba vraiment ba delloo artistes yi seen dignité ñuy dundee lu ñuy am na li ñuy liggéey quoi li ñuy liggéey am na solo parce que nag boobu ba léegi depuis 1960 ba léegi. rythme bi fi nekkoon moo fi nekkaat. ci artistes yi artistes yi nguur gu ñëw duñ ci gis seen bopp. sauf que nag ñi nga xam ne ñoo gën a jege soit ay géewlu président wala ñu jege ñoo ni ci nguur gi ñoo ñoo gis seen bopp mais. en glo en global ni ñu koy waxee. ñoom mhm. gisuñu seen bopp. kon lii li ngeen ci li ngeen wax ni am na solo bu baax a baax mhm. ñu ngi leen di xaar ñun artistes yi ñu ngi leen di xaar bu baax a baax a mhm. baax ngeen teg ñu loxo. parce que nag jot na wax dëgg yàlla. Yoro. léegi nag carrière Yoro na dama si ñëw. Yoro fan la dooree. musique. musique moom euh, je l'ai Mbàkke laa ku xam ne ku ne xam ne ne man Mbàkke dëkk fa laa juddoo fa donc foofu laa démarré forcément. Euh, en tant que amateur xale di ko foye di ci màgg di ci màgg ba voilà quoi après je me suis retrouvé à à Diourbel dans l'orchestre régional de Diourbel loolu mooy sama passage après ma delluwaat Mbacké def def one man show après voilà quoi donc euh, ba nu ma retourné ba ñu ma ñëwee Dakar installé wu fi depuis 2016 96 du moins 96 loolu yàgg na de 96 je suis à Dakar <laughs> 86 euh, la installé wu Dakar définitivement quoi. macha allah donc euh, commencé nag di mais euh, sama carrière mu ngi démarré. Hmm. officiellement vraiment dans les années 2000 2002. ok ci laa njëkk def apparition vraiment ci. Sénégal demee coupe d'Afrique coupe du monde. voilà donc ci la hmm. njëkk def mooy suñu compilation bi amoon bi nekkoon Sénégal folk tawa frère Guissé defoot ko. ok donc si boobu laa njëkk vraiment. Hmm. commencé sama premier album génn nag 2004. Oh, donc voilà mën naa ne. instant yaa ngi toll si ñaata album. bii mooy sama cinquième album. macha allah parol yi yoro paroles yi da koo jàng wala paroles yi dañ ko koy bindal wala yoro moo koy xalaatal boppam parce que yoro sa way ku ko déglu. Mm-hmm. xaw ma ko dul melomaan mais melomaan bu déglu way yoro da ciy gis boppam. alhamdulilah. macha allah alhamdulilah alhamdulilah donc loolu mooy euh, loolu mooy li nga xamante ne bi peut-être mhm. mooy satisfaction ci man. Mhm. Euh, lii li suñu suñu grand Thione ndem si yàlla si daan wax naan waaye bu déglawul yeetewul. Mhm. ay naxaate ay naxaate la voilà donc euh, alhamdulilah kon bi nga xamante ne bi góorgóorlu nañ ci ba bàyyi ci waar woo xam ne ku ci ku ko am ci. lu la neex. sant yàlla quoi. donc mais euh, paroles yi nu lay paroles yi moom c'est c'est le quotidien li nga xamante moom laa gis nit yi di ko dund ak li may dund man personnellement ak li nga xamante ne bi nit dina la ko souffler nit mën a la wax ñaari baat comprendre ne la yoro de nangam war nga si way mhm. parce que nangam a ak nangam nga réfléchir ci bind si texte wala nit wax la benn idée bu ndaw automatiquement après yow nga bind ko nga développé ko def ko def ko way wala nga yem ci benn action boo xamante ne bi interpellé na la mhm. nga def si wala sax nga dégg way ci boppam mhm. ci biir way boobu nga jàngat ko wayaat ci beneen way ok xam nga déglu beneen ndaanaan. waaw mën nga déglu benn waaw mën na la inspiré mën naa déglu benn Youssou Ndour. Mhm. par exemple mu woy xarit. Mhm. man ma jël xarit woyaat ko neneen. Mhm. c'est-à-dire moom angle d'attaque bi mu am. xam nga ni mu ko traité man ak ni ma koy traité man a bañ ku nekk war mun nga dégg benn woyu mbëggeel. ma dégg woyu mbëggeel mu inspiré ma ma woyee ko neneen man aussi quoi. xarit boobu sax wayu xarit boobu man yoro da nga koo dund wala parce que xarit dafa dal lool. Hmm, alhamdulilah. moo yiñ ci da wax macha allah ba mooy way boo xam ne du xewee. Mhm, c'est vrai parce que xaritoo du fi jóg. c'est vrai c'est vrai waaw mais loolu la c'est-à-dire xam nga boo am na thème yoo xam ne boo ko laalee rek. Mhm. automatiquement day dem day day def l'unanimité quoi. Mhm. donc euh, peut-être yàlla moo si def barke. macha allah a tu as boo wëndeelu fem foo dem moom lañ lay laaj xam nga da jëm bëgg tu as envie de passer à autre chose. mais chaque fois ça parce que lu mooy ma wax du fi jóg. te xarito dafa nekk lu am solo loo xam ni. Mm. Mm. nit ku nekk da ko war a sàmm te léegi sàmmatuñ ko. ma duggaale foofu gis nga mm. léegi diggante yi. nit ñi ñaari bëgg ñu gis ñaari nit yuy ànd. showbiz bi surtout. showbiz bi gis nga barki démb Waly Sidi Diop dem na seeti ko. mais yaa ngi déggaat yeneen polémique Sidi de li mu def sincèrewul ci moom nangam nangam day indiwaat li nga waxoon. ci woyu xarit bi. mais mais mais loolu du xaritoo en fait c'est-à-dire mhm. maanaam euh, ay ay ay nan laa ko ay collègues lañ ko ay collègues de musique. Mm-hmm. xam nga donc ñu seq ay euh, ab teen ñoo ñooy laxasoo ay goj. Mm-hmm. et loolu fi lañ ko fekk depuis jamono ñoom Youssou Ndour. dëgg la ba jamono yi ku nekk ak sa jamono ak ni nga koy ni nga koy gérer yàgg nañ fi dégg des polémiques entre les artistes ah. a toujours existé te loolu bokk na ci li li li li li li animé. showbiz quoi. dëgg la voilà donc je crois que loolu c'est pas méchant quoi saa dire bu leen nit yi gis nga nit yi. bu leen bàyyee. rek mun nañ gérer seen c'est-à-dire nañu bàyyi xajal nit yi. bañ a xajal nit si diggante yi quoi. Mhm. je crois que parce que fii mhm. artiste bu nekk. Mhm. mun na dund si aaram. te du yàqal beneen parce que nit ku nekk wërsëgam. ala kuliyal. mun na mun boo boo tëddoon dina la sax dana la fekk sa wërsëg. comprendre nga. donc je crois que le fait que kenn am succès. mënul tere keneen ki am succès. am na ñoo xamante ne bii tey jii su ma su ma doon tëgg fii. ah ñu dëkk fii à côté duñ génn. Mm-hmm. comprendre nga. Mm-hmm. am ñoo xamante ne bii. maanaam su ma doon tëgg fii Youssou Ndour di nekk fee di tëgg. Mm-hmm. duñ dem ci Youssou Ndour ci man la ñuy ñëw. yàlla moo koy créé te loolu kenn xamul lan moo koy def. comprendre nga lu mu expliqué cest à li nit di attiré li nit di def euh, mu am cofeel ci doomu aadama. yàlla moo ko moo ko làq fu kenn xamul. comprendre mm-hmm. donc je crois que il va falloir qu'on ñu ñu ñu yeewu. Mm-hmm. te bàyyi euh, xel bu ñaaw quoi bàyyi tamit dugg dugg si diggante yi di ci. ak yàqante bi voilà yàqante yàqante loolu c'est pas bien. Yoro mos nga dund lu mel noonu benn boo xam ni xam nga ni kii soppul Yoro te xam nga ni kii mi ngi jóg di def Yoro loolu. man lu moom nee naa la man bëti garmi laa yor quoi <laughs> en fait yi am yoo ne bi franchement noo yoroon ak showbiz nga nekk xam nga ne showbiz bi bari na tendance <clears throat> man man je touche du bois mhm. maa ngi damay laal bant wax dëgg <laughs> yàlla am à moins que mhm. cest à nit ki lekk si ginnaaw xelam mhm. moo ko xam moog yàlla comprendre na man lu positif laay xool ci yow cest à man xam naa ne du ma musuma dajeeg nit ci ci bi sëgg wala ma mil nit ci milieu bi teggi mhm. parce que man je suis trop fier dama fier ci moo tax du ma bëgguma def lu ñaaw mhm. bëgguma euh, ji lu ñaaw nit mhm. ba tax ba ëllëg si biir damay am gêne comprendre nga su ma en fait l'unanimité moom munoo ko am c'est-à-dire mënoo am ñëpp bëgg la xam mais mën nga rafetal mën nga rafetal maanaam yéene man en tout cas képp kuy sama nawle musicien yéene naa la jàmm lépp luy sa wërsëg yàlla nga si jot amiin képp koo xam te yàlla bind la nga nga nga war ma raw yàlla na nga ma raw comprendre nga li ma expliqué de. ah li nga wax de. non mais si. parce que da a raw dire na diw moo may raw. te ah. lan laa ah. ko dàq way mën ko dàq euh, mu raw la. Mm-hmm. comprendre nga li ma expliqué. Mm-hmm. ça ne veut pas dire que moo ëpp talent quoi. mais yàlla mooy bind jaam yi wutale leen. Mm-hmm. cest dire boo ko xamee noonu. comprendre da noppaliku comprendre nga defal li nga war a def jiital ci passion xam nga la moo am solo tu que tu fasses les passion. wax nga mu bu am solo. Mhm. passion nit looy dugg ci àdduna. Mhm. na nga am amour bi ba pare. Mhm. parce que yaakaar naa ne man pour man solo man ñi nekk ci showbiz bi da yàkkante nii. dañoo desee am amour bi. parce que séntu asamaan nag jarul buuxante. comme li nga wax léegi am na ñoo xam ne yoroo moom yoroo dee seen xol moom leen di bëggal bu toogoon di yuuxu sax neex na leen. am na ñoo xam ne Wally lañ bëgg am na ñoo xam ne Pape Diouf lañ bëgg am na ñoo xam ne Sidy lañ bëgg. mais seentu asamaan jot te bu xante voilà loolu laa doon wax sama benn rakk mhm. barki démb bu ne ci buy woy mhm. ñëw fii ñuy waxtaan ci musique ma ne ko man mhm. c'est-à-dire man awma problème par exemple xew wala xew yi wala nekk fi wala bañ fi nekk parce damay jouer ñetti nit di fa nekk ma joué ba ma am bay am guichet fermé. ma mhm. joué ba bu bi wàññeekuwaat ma joué waat ba nit ñëw. Mhm. ça veut que c'est circuit la euh, maanaam buy buy tourner di dem ak ñëw di dem ak ñëw cest dire mhm. passion bi na fa nekk. man ku dem fekk ma fi ku dem ku ñëw bàyyi fekkaat ma fi. comprends nga lu ñu expliqué. d'accord comprends c'est-à-dire je suis di ko def. que nit yi maa ngi koy def que nit yi dem. maa ngi koy def donc loolu moo ci gën a am solo. comprendre nga. voilà donc je crois que mu ngi mel ne tey ku nekk ubbi boutique. ci mhm. benn koñ. waaw bi dañuy jékki-jékki ñëw benn boutique bu bees ubbi clientèle bi gën a dem foofu mais yow yaa ubbi sa boutique pour jaay. toogal xam nga mhm. toogal xaar yàlla nga jaay. Mhm. tey jaay marchandise bu baax. dëgg <laughs> surtout yoro parce que nag xale yi léegi boo xoolee. seeti naa ay artistes yu bëri mais même mot bi benn la parce que xale yi way bi ñu ngi way. Hmm. mais am na ci ñoo xam ne ñu way waaye am na a yem yoro est ce que xale yi jotul ngeen tette leen yéen ñi leen ci jitu wala comme moom ñoom bu ñu ñëwul envers yéen yéen ngeen dem envers ñoom bala ñoo rey aar. ah mais dem dem ñoom nag day xaw bi lan la mooy mm-hmm. ma en tant que aîné wala ku la jiitu ci néeg bu lëndëm. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. mun la woon lu fan nga fan ngay toogee. man la plupart dañuy ñëw ci man. vraiment di partager man. man soxoruma mhm. lu ma xam ci lu baax mhm. ci parce que ñun on a eu des des des obstacles dans la vie ci mhm. musique xam nga kenn ku ci nekk am nga euh, jaar nga fenn mu kale nga wëri beneen yoon xam nga léegi nag ñun pour ne pas suñu rakk yi di jaar foofu ku ci ñëw wax la mhm. mën nga ko ne booy defeel nii dugal fii génnal fii et puis loolu duñ ma wàññi dara mhm. comprendre na mhm. man yemuma ci sax cest à dama leen di jàppale ci sama sama studio nit yi dañ fii ñëw comprendre nga su ma gisee na am nga talent su ma la mënee accompagner comprendre nga fexe ba nga am un produit wala même bu ma la mënul si j'ai pas fexe ba am benn support sax bo moyens bu présentable nga mën a dem dàq sa wërsëg feneen je le fais et ce que j'ai toujours fait xam mm-hmm. nga mais nag il faut que nit ki ñëw tendrement mm-hmm. la mais mm-hmm. il faut que tamit beneen affaire aussi waxuma tamit ñëpp daw ñëw <laughs> comprendre c'est-à-dire en fait il faut que quand même c'est-à-dire il faut que man produit si je le sens je le fais pas c'est-à-dire naa gis nit xam nga muy def benn affaire bu ma ko sentirul du ma ci dugg parce que parce que bu fekkee jëm bokkul man vision ci musique wala boog li muy def man sentiruma ko wala boog man parce que du ñëpp ñoo am talent quoi ñëpp bëgg mais du ñëpp ñoo am talent man comprendre nga lu ma donc ñu ci ñëw ci man su ma jàppee ne war naa la mën a jàppale je t'accompagne y a pas de souci quoi mi ngi noonu kon yoru fii ñu la fekk sa studio la mm. xale yaa ngi leen di produire waaw man jot naa def benn compilation la jot a def mm-hmm. mais ak ñàkk yi xam nga parce que production du caaxaan mm-hmm. voilà donc euh, j'ai euh, mos euh, y avait bi mu koy def boobu francophonie ñoom ma accompagné woon. macha allah comprendre mm-hmm. donc ma def produit bi ci laa defoon sax sama festival bi aussi quoi. Mm-hmm. mais boobu ak léegi def ma deuxième édition bi mais incha allah bu ma comme dama nekkoon ci sama album. album bi pare na. léegi maa ngi waaj a songaat deuxième édition bi. foofu laa jëmoon sax ah. festival bi macha allah parce que <laughs> nag bëgg a namaat nañ ko lool. benn yoon nga ko ñamal nit ñi. ñu toog di xaar Europe. non dina ñëwaat dina ñëwaat ça a venir de toute façon comme xam nga li naan mënuma ñit mënul warandoon ñaari mbaam quoi. Mhm. donc il fallait ma concentrer wu man ci sama bopp ba pare. Mhm. xam parce que sinon. Mhm. Euh, fekkente ne bi man nekkuma. mun ma yóbbaale kenn quoi. il faut que ma ah. toog. xam nga def samay li nga xam ne moom lañ ma xamee. xam nga bu ma bàyyi sama bopp aussi quoi. il faut que vraiment job sama musique ba mu nekkaat ci raay bi. Mhm. après ma doog a tàllal loxo nag booy ne leen kaay leen. kaay leen ñu kaay leen ñu kaay <laughs> mhm. mais gis na ne Yoro ak romantisme Yoro macha allah dafa mën a woy woy mbëggeel. Hmm. Yoro mbëggeel gi da koy dund wala comme ni nga ko waxee dañ la koy expliquer. Hmm. wala Yoro dafa romantique. je sais pas honnêtement je sais pas peut-être romantique moom xam nga kenn du ne romantique. Ah, en tout cas de ni nga koy ni nga koy woyee moom neex na lool te parole yi tamit day na waar dafa mel ni ku ko dund koy wax. bon je sais pas romantique moom da nga koy def wala defoo ko si je l'ai je je si je le suis. Mm-hmm. alhamdulilah. Mm-hmm. donc euh, dafay dafay te yàlla moo ko ciy def. comprendre nga donc c'est difficile d'expliquer. Mm-hmm. parce que même bu may bind texte ça ça vient tout naturel. voilà donc du lu may forcer daal. du lool du loo forcer loo dund la wala. loo dund mais nit ku nekk ku ku kuy dund kay boo nekkee. muskal dem non li nga ciy way ci ci mbëggeel macha allah dafa bëri. texte yi dafay am solo lool paroles yi dafay am solo lool. Hmm. yoro kenn xamul dafa dund loolu kenn xamul loolu dañ ko ko. waaw mais nit ku nekk dund na mbëggeel non cest à bo boo demee ba nekk muskalaf man je je vais avoir hmm. comprendre doon ci sa passage ci sa sa vie di nga dund ay mbëggeel di nga dund déception di nga dund lépp c'est normal loolu ah di nga ko dund da nga ko gis ko ko dund mhm. comprendre maa ngi bëgg a yàgg si jamono tuuti quand même c'est-à-dire boo bu bu bu dul yow yaa koy dund ba léegi bu dul yow yaa koy dund bu dul yow yaa koy dund mhm. di nga gis sa mbokk wala sa xarit ko ku la jege mhm. ku koy dund loo xam te daf lay inspiré donc euh, voilà quoi c'est des expériences comme ça en fait li ma lay wax rek mooy euh, en fait texte yi ñuy def mhm. mooy c'est som somme des des des expériences yi ñuy dund mu mën na doon man comme mun mhm. na doon nit bu ma jege wala ku ma xam en fait loolu la quoi mi ngi noonu macha allah <laughs> <laughs> waaye en tout cas Yoro fi mu toll nii ñaata fan la toll ci soxna yi Yoro mi ci ci benn wala mi ngi ci ñaar man ñaari soxna la mos a yor depuis très ñaari soxna boobu waa boobu a léegi yàgg na yoroo. da nga bëgg mu wut ñett. waaw. waaw waaw de. nee samay xarit ngeen yéen ñaar samay xarit ngeen. <laughs> mais senegal moo toll foofu. Ah. xam nga dañoo fi mu ne nii loi bi voté nañ ko wax dëgg yàlla polygame bi moom daa war a jalaañoo ngeen jël ci xale yi. waaw ne booy yi takk pare booy yi ñoom. <laughs> ñoom pap <laughs> booy takk nañ booy nañ takk quoi garaawul. mais ngeen doole. non mais attends ça c'est pas c'est pas en je crois que c'est pas juste parce que da nga bëgg a rek nga takk quoi cest à da nga koy takk ci yoon aussi quoi <laughs> c'est-à-dire lu war a gis nga en fait lu war a nekk ah. kenn mënul fexe bu nekk boo waree am benn jabar benn jabar ngay am boo waree c'est en du man en fait ay tout ce qui est polygamique yooyu du lu may rechercher quoi mhm. comprendre na mhm. cest dire day jot yàlla dogal ko mu nekk mais du par exemple maanaam damay tak bënd sama jëbi ne il faut bala maa dee am non non non non fu sëy fu ko yàlla tudd rek lay lay am quoi c'est-à-dire bu yàlla dundee ne bala ngaa dee di nga am wala trois femmes mhm. wala benn jabar ci ngay yem mhm. loolu munoo fexe ba du jaas ta loolu sax am na solo ci waxu jaba soxna yooyu sax laay jëm mm. gis nga barki démb sa jarbaat ndaxte lo bi nekkoon seen petit gàlle mhm. ak borom jëkkëram Mario Mbaye ndate génn def ay révélation yu doy waar yu métti Sénégalais yëpp jigéen yëpp déggaguñu nag version Mario parce que benn version lañ dégg muy bu ndaxte nee na njëkk ko doon torturé. daf mun mm. na ba avorté deux fois. avorté tëdd ci lalu hôpital message jëkkër ji ni ko dama la soxla sama côté mun ko damay dem soirée moom moo jeex di ko dóor di ko torturé xale bi wax na lu bëree bëree bëri. looy wax ñaaxaat góor ñi ci côté boobu. Hmm. bon de toute façon loolu je l'ai pas suivi. Mhm. comme ma ci mun a sori quoi je l'ai pas suivi donc euh, voilà donc mais li ci mun de am daal mooy euh, nekkin dafa dafa jafe. Mhm. je crois que il va falloir que ñuy ñuy ñuy ñu yërëmante quoi. Mhm. xam nga boo nit boo nekkee ki nga xamante ne mooy way dencante bi nga nekkal. Euh, je crois que dafa war a am tuuti compréhension. am te et puis li tax li yàq affaire yi léegi mooy en fait yi dañ ci génn loxo c'est-à-dire nit ñi dañuy takku dañuy takkante après ñu ñu beru quoi xam nga ñu beru ce qui fait ñi daan ñi daan servir de de garde-fou ci ci sëy bi en fait voilà donc dañu sori dañuy dem ba bi fay ëpp ay loxo ñu siy doog a jot je crois que il va falloir que ñu dellu ci ci ci xale bi sax mi ngi doon wax ne moom doon na interpellé ay parents wu Mario mais ñoo dem ba benn instant ñooñu mel ni ñu faral seen doom bu leen woowee sax ñu ko dañoo sonn ci kalaame bi. Hmm. waaw bon je sais pas franchement man je veux pas personnaliser moi quand je man parle de. Hmm. des choses comme ça je parle en parabole. Hmm. parce que c'est comme c'est un truc personnel que je maîtrise pas du ma ko orienté foofu damay wax rek en général comprendre nga en tout cas comme ci munti doon daal comprendre nga nañu nañu nañu nañu muñalante te et puis bañ di génn di wuññi maanaam secret yi am ci parce que fii kenn ku ci nekk peut-être la plupart jigéen ñi ñooy wax mais est-ce que bu góor ñi doon wax aussi. <laughs> du xam nga bon jigéen ñi ñu suñu ñooy samay xarit nag quoi man jigéen ñi wax dëgg yàlla am bëgguma dara lu leen métti. suñu xarit nga comprendre mm. mais je crois que il va falloir que ñu ñu qu'on sache euh, raison garder quoi en tout cas. Mm. jéem a fexe ba moytu média yi. surtout comprendre c'est-à-dire moytu média. lu xew ci sëy nga bëgg ko médiatiser. Mhm, mhm. génn ko c'est pas c'est parce que problème yi ñuy dégg yëpp bi sëy commencé dugg ci média mhm. la problème yi commencé. voilà donc je crois que li li xew ci ya li fi li fi xew ni ci sëy mus fi jóg depuis suñu jamono ñoom yaay. ba léegi mus fi jóg. comprendre la mhm. ay euh, c'est des exceptions parce que li tax mu nekk exception moo tax nit yi yëg ko mhm. comprendre mhm. voilà donc euh, je crois que nit yi mën nañ bu ñu mënee ànd nañ ànd ci njëkk ak teraanga voilà bu ñu mënatul ànd euh, ñu ñu ñu ñu su parce que nettali benn affaire mooy weer sa comprendre lu expliqué weer sa bopp la parce que mm-hmm. tu n'es pas obligé d'aller étaler ta vie mm-hmm. ci àdduna bi ñu koy ngawti ngawte kenn ku ci nekk di ko en fait luy dugg ci internet bi c'est pour la vie quoi internet bi nekkul mm-hmm. voilà donc je crois que nit yi mën nañu garder seen vie privée pour ñoom xam nga euh, voilà kenn ku ci nekk am na góomu xol comprendre muy góor muy jigéen mos nga dund loolu ci mbëggeel déception déception je crois que nit ku nekk peut-être mos mën na ko mos na ko dund ah, ñu ci bëri bokk ñu ci bëri dund nañ oh, déception temps yi nga nekk jeune mm. mos nga am benn gel jékki-jékki dund ak moom am yàgg ñu mayee loolu c'est une grande déception <laughs> <laughs> bon c'est pas important garaawul c'est c'est-à-dire muñ muñ demoo di xeex ak gaayen bi di ko kar non non non non jamais pourquoi <laughs> yoro loolu neexoon naa fekkee oh. muñ muñ c'est c'est la vie ah c'est la vie adduna moom mook adduna moom boo fi nekkee. Mhm. di nga dund lu lu lu neex lu baax. Mhm. dund safaan ba xam nga mhm. parce que mënoo di dund rek tout est rose ngay avancer mënul nekk. comprendre parce que soo toogee lépp di neex sax bu yàggee war nga tiit. xam ne li ñëw peut-être du ñàkk dina am surprise. donc je crois que c'est comme ça lu ñëw. il faut mu nekk loo xamante ne bii leçon de vie lay doon. c'est-à-dire en fait yooyu yëpp du nekk ay échec. cest dire boo gise ab jàngat la leçon de vie la boo xam ne ni ça te permet. de demaat ci beneen étape ak beneen ak beneen expérience quoi. Mhm. en fait loolu la quoi. Ah, mi ngi noonu. Hmm. ñu bàyyi la nga tàggoo tàggoo du tàggoo kontaan naa nag <laughs> kontaan naa loolu dama moon waxtaan <laughs> waaw man aussi ça fait plaisir hein, vous oh. m'avez offert l'opportunité de voilà waxtaan ak. Euh, mm. am di jàmm yeeg internet yi nga xamante ne bi ñoom ñoo nekk. Euh, mm-hmm. Feeling Dakar donc. Euh, mm-hmm. di leen jox dax dig daje rek incha allah mm. fin juin incha allah pour l'album yaay kan donc ngeen dem. dañuy ñëw jàpp ci promo incha allah ngeen dem ci plateforme de téléchargement yi. Mm-hmm. commencé def seen réservation d'ici peu dinañ ko uploader ci. plateforme yi. et puis ngeen abonné surtout. sur mhm. les pages Facebook YouTube ak Instagram TikTok un peu partout c'est comme ça qu'on noonu la ñuy soutenir un artiste mhm. bu ngeen bañee dara raw leen ko ci ci info yi nga xamante ne moom mooy xew ci suñu suñu carrière quoi ñu ngi leen di jaajëfal kontaan ci bu baax baax a baax mm. fan si yoro yi dégg ngeen li yoro wax daw leen di aussi suma rakk mhm. euh, Sidi Uh-huh. que lu mu dëgmal lii ci Zénith bi. ci Zénith bi waaw dama fàtte woon loolu yàlla na ko ci yàlla defal ndam. amiin vraiment succès bu mag laa ko ciy ñaanal. amiin parce que il va falloir que quand ku uh-huh. ñu jàng. Uh-huh. supporter suñu doomu réew. parce que bu fekkee dafa dem à l'étranger. xam nga c'est pas parce que doo fan sam. xam que doo dem ci truc dem pour soutenir vraiment ah, la musique sénégalaise mm-hmm. en général mm-hmm. c'est-à-dire il faut que ñu bàyyi état d'esprit boobu mm-hmm. par exemple sénégalais rek laay gis mu dem à l'étranger euh, beneen camp di xeex pour ba soirée bañ réussir te loolu c'est mauvais c'est pas bien comprendre sénégalais bu dem déplacé woo ñun xeet sénégalais rek ñoo koy def il va falloir que ñu jàng di supporter suñu suñu réew voilà ku munti demee le fait que ki réussir du tere sa artiste bu ñëwee réussir. Mm-hmm. donc nañ leen jàppalante bàyyi leen état d'esprit boobu c'est pas bien. yaa mm-hmm. ngeen def. <laughs> mi ngi internet yi xam naa ni ngeen bu baax a baax ci waxtaan bi ma leen indiloon ak Yoro Ndiaye macha allah waxtaan bi am na solo comme moom gis ngeen ko Yoro dafa calme dafa cool waaye nag boo waxee rek li muy wax macha allah day jëriñ askan wi. Mm-hmm. te ay waxam tamit ñu euh, intéressé na bu baax a baax a baax sénégal yi que li muy wax am na njëriñ am na solo. kul geeg yi calme gi <laughs> terew ko wax li mu wax looloo ma jaaxal ci yoro kul geeg calme geeg fu la ju bëri ji terew koo wax li mu war a wax macha allah di bu baax a baax a baax ci équipe technique bi ma àndaloon Pape Aïssatou réalisateur réalisatrice bi madame Diop sama DG Bamba suñu PDG Abdou Khadir bàyyi ma kenn ci kër gi di kontaan bu baax a baax ci waa Ndella Fashion ñoo ma def nii ci robb bi Pape jëlal jëlal ma sama robb